kon dañ ñu xam famille bi fu mu nekk parce que nekk nañu comme lu olof di wax mënoo xam ku la bañ fu mu tombé waral ay gaaf kon mel na dañuy yéeru rek ñun da ñu topp man nag maamam la kale man maay papam mais affaire bi mu ngi bëgg nakari lool ci fu mu mun a yëm te nguur bi amul benn luñ ci def intervention kii dee na defuñu intervention kale dee na defuñu intervention gisuñ ci dara li nga xamee ne moom moo tax muy seral suñu xol bu dul yéen yi journaliste yi ñëw fii yéen donc la ñu xam ne ne moom yéen a ñuy jàppale même wax rek ngeen mun mais lu su des yi mun leen wañaaroo loxo kenn kon nag Baye Makhtar Seck lu mu wax nee na ki ngay waxan te doo am foo dégg jarul nga ci sori nañu dimbali ngir yàlla ak yenante bi ñu di ñu sarax ñu ñu jox ñu suñu néew dox na dox nañu ba bëgg a dee mën nañu fekk di ko jot ko ba jusqu'à présent fu ñu toll ni jëmu yàlla trois jours ñu ngi daw di dikk daw di dikk chaque jour ñu ne ko tey ëllëg tey ëllëg dee na ñàkk nañu dee na ñàkk nañu dee na ñàkk nañu ñàkk fu fu mu gën a parce que xale bi nga xamee ne moom lan mooy yi itam mooy jàng su jàngee bu jógee ci école ba mu ngi ci kër gi maa la mu dem ci école football bi école football bi ndax bañ nañu ko doxi dox bi dañ koo bañ moo tax ñu dugal ko école di ko dugal école football di ko fayal bañ a dox dong lii nag xaritam mu ne ko damay ñëw sa kër te doo ñëw sama kër munu ma wax ne man donc toujours may ñëw munu ma tey dinaa ñëw eh, ñëw seen kër nuyu su yaay su ñoom ñëpp nem nañu bu waxtaan di ñibbi rek ci foofu la événement bi ñëw événement bi ñëw nag mooy der boo xamee ne moom dafa gën kii xam nga ne nit bu demee bu dee ngeen rey ko ba pare carton carton laa wax carton lañ dupp ci gam carton lañ teg ci gam yàlla bi nga xamee ne moom ñu yore photo yi ñu fekkoon ñu woon fii ñu woon la ko ñun kay bu dee xanaa xam ni jël kam lu tuuti kam même benn séri sax teg ci yoon mais karton lañ teg ci yoon te foo fi gis bal baa ngi fi kale même à la à la à la façon nu ñu reyee papam bale fii lañ ko jam paal moom tamit à la même fii lañ ko jam bal bi waaw ñun moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm yàlla neen yàlla jàppale yàlla neen yàlla jàppale te li ngeen fi jëlul fii ñëpp lu nit di wax bu di nga xamee ne moom waxuñu ko waxul dëgg day fabriqué leen mais lu ci gën a wér rey ñàkk nañu rey nañu suñu doom ñu ngi ñuy toppat di rey nag nguur bi su fekkee am na luñ ci mun nañ ci seetal benn famille rek nga toppa ci at bu nekk benn at bu nekk benn te toujours ci rey affaire bi dafa xaw a yéeme affaire bi dafa xaw a yéeme ci ñun nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñun moom loolu mënul tax ñu jég ci dëkk bi parce que yàlla moo ñu ko sax waaw duñ kat aussi duñu nekk nit bu ñu xamee ne dañ leen di sacrifier toujours bu naqar jotee rek ñëwoon na amuñu fi ñu joote nag bu dul ci yenn journaliste mais pour nguur moom xamuñu ko parce que amuñu kenn intervention bu nga xam ne yéen tamit wax rek ngeen ci mun wax dong ngeen ci mun mu ne leen ci dara parce que mu ngi noonu xaanoon lu papam moo yoroon bal bi mais su fekkoon papam nekkoon na fi damay génne bal bi bu nga gis ko ñun xam nañu dañ def joor xam nañu bal fétel xam nañu bal bu dul fétel xam nañu paaka xam nañu bul ministère bi nag nee na paax moom moom moom moom lañ ko jam te nit balaa ngay wax dara dangay ngay déglu la da ngay déglu ko ñu la koy wax ay borom wax la ko mais doo jékki-jékki nga ne ko kii ah, waaw waaw wax nga dëgg jéggal ma ni wax ne kii paaka lañ ko jam na fekk nga gis ko maa àll ki nga xamee ne moo ko jur moo la ko wax mais jékki-jékki nga ne ko balaa ko rey doo paaka kon xanaa moom sacrifié nu ñu reyee papam bi mooy joxewaat paaka bi nañu ko rey parce que papam dañ ko rey moom nee na paaka la paaka boobu moom moo ko daas rek mu mu jox leen di leen rey parce que loolu moom actuellement kaddu boobu na na ci bàyyi xel su fekkoon am naa doole comme moom bu suba tribunal mënuñu tàggale parce que papam paaka lañ ko rey moom tamit ñu koy wax pare gu ñu mu ne ko paaka lañ ko reyee kon kay kon moom moo leen jox paaka benn paaka bi moom moo leen topp mu ñu rey jeex nañu de wala mu suñu yaakaar nekk rek mu rey loolu ah aduna mu ngi suñu kanam mais nag baal ñu ko kaddam boobu baal ñu ko suba baal ñu ko ëllëg dafa xam ne ne moom sama amoon doole comme moom dootu ko waxati il faut mu tey day wax ne journaliste yi nañu tey ñoom ñoo war a tey balaa ngay bind dara man la di déclarer dara da ngay wax balaa ngay xas nit ki na fekk mu bañ a nekk ci yow fen boobu bu mu nekk ci moom bu ngeen ko waxee ñu ne ko moo ko wax mu ne bugg a weddi man la mu nekk dem man la damaa loolu ay fen la nit lu mu wax tey da koo tey balu balu gémmiñ gémmiñ la rek loo wax yow yaa ko waxal sa bopp bul wax ne damaa juum wala juumam déedéet da ngaa tey man sama la saagee rek dama ko tey ñun moom jërë ngeen jëf laa leen mun a wax yàlla leen yàlla fay seen taxawaay mas leen coono ka di wërsi jaalu bi ñun ñëpp la kontaan nañu yàlla leen yàlla fay bu baax a baax yàlla leen yàlla fay bu baax a baax a baax gindi fay parce que yéen ñëpp sonn ngeen ci taxaw ngeen ci taxaw bu rafet su fekkoon am nañu lii lii day seral xol mais amunoo fexe bu gis dara man la nga am dara bu dul ne lay kokkali eh paaka lañ ko rey eh eh bandaar yi li fi génne ni fi loolu dafa nekkul wax bu rafet nañ ko jàpp nañ ko mais bu dégguma ci résultat benn résultat fu ma dem ñu ne ko xaaral xaaral parce que bara ko am bara droit kii amul bara droit ci bokk kii tamit noonu ci noonu lay doon de parce ñii man maay seen sama loxo jotul moom mënuñ faa yóbbu mënuñ fa yóbbu seen bopp kon kay kii tamit moom perdi na rek bañ nañ ko fa noonu rek comme kii nu mu demee rek noonu rek lay demee sambal teg la dégg dégguñu daal wax naa moo gis waa ji ñu ne ma déet wax def naa plainte ñu ne defal plainte def nañ ko dara ñu ne jàpp nañ ko léegi nuñ koy defee wax ñu ma dara amul benn kaddu daal bi nga xam ne bu am bu lu leer jëluma ko ci. moom mooy jula la papa si Samba Camara moom nga xam ne moo fi daaw si forêt classique bu mbaaw bi te ñu jamoon ko paaka mu wuuteeg bii nga xamante ne manifestation bi amoon muy euh, Pape Amadou Kaytam mi tamit nekk sët si moom mu nekk loo xam lu métti loolu la ba tey ñu daal di wéyale rek euh, ku baax ñu ngi lay nuyu. ñu leen di ziara. yow wayjur nga mën nañ ne si ki nga xam ne moo fi jóge euh, nan nga yëgee xew-xew bi dal si seen kaw. waaw ki fi jógee Pape Amadou Keita Euh, ki nga xam ne mooy papam di Tanor way juróom bu góor ñun suñu nijaay la ndax mook suñu yaay ñoo bokk benn ndey kon Pape Amadou Keita suñu doom la nekk xale nag xale bu ndaw mooy des quinze ans koo xam ne moo nekkoon avenir u papam moo nekkoon ki nga xam ne lépp li nga xam ne papam mu ngi ci doon daw rek pour mu réussir vie mun koo satisfaire sutenir ko après mais lépp ñàkk nañ ko ci zéro ci loo xam ne ay manifestation yoo xam ne la moom bokkul ci manifestation demul ci manifestation xam nga ne mooy de quinze ans moom suñu ñee dee na ci manifestation rey nañ ko par par bal kooku moom dañ naan ñenn ñu bëri dañuy jaaxle lan la fa doon wuti te donc ay vingt heures la 22 heures ndax moom fii la nekk ci kër gi presque ba 20 heures mu reer ba pare jug ne day dem kër tantam ci ay xaritam mu demee ba ci yoon bi juste comme xale boo gisee nit ñi di daw mu daw topp leen finalement ci lañ dóoree bal bi mu jam ko ci la ku la dee muy ba Real kon loolu metti na ah ñun daal li ñuy wax mooy justice nañu def seen liggéey duñu wax dara parce que benn côté bi aussi dañuy gëm ni yàlla moo ñu ko joxoon ndax yàlla moo namoon ci moom loolu waaye nag yàlla mun naa namm mbir waaye dafa am sabab mais li ko sabab nañ ko lijjanti ba mu leer parce que ñun loolu rek lañu soxla tey justice def liggéeyam tey waxuñu Sonko waxuñu Macky Sall tey amul kenn benn part ci ñoom koo xam ne tey ñëw na fi def jaale ñu wala gis nañ ko fi amul benn autorité bu fi teg tànkam te mu ngi nekk ci commune de Mbao commune de fii ñëpp xam ne ne Abdou Karim Sall moom mooy maire bi amul kenn ku ko fi représenté ñëw def njaalam wala ñëw xam ne ne carrément am na am na naqar Mbao kon donc ñoom man day euh, tekk na rek population bi fiy nekk respecté wuñu leen fenn lañ leen di respecté soxla leen muy période élection campagne soxla nañu benn affaire pour nekk président wala nekk maire loolu lañ soxla wala nekk député nañ dugg ci peuple bi dialogué leen nax leen xam nga jaar seen kaw jàll mooy ni ko Mouhidine Samba Diallo doon waxee rek politique oto la bu yàqu day ñëw paan nga puus ko mu tàkk amaana ñu ne la au revoir merci amaana duñ sax génne seen loxo tàllal la ko vraiment li fi xew nekk na métit boo xam ne mun nañ gis commencement bi mais ñun famille bi au fond xamuñ fu mu toll ci ñun ci métit parce que suñu doom boo xam ne avenir la ci ñun na même pas 15 ans ñu reyal na ko ñii comme ça ci zéro zéro zéro zéro xam nga kon déjà coupé nañu suñu avenir suñu suñu suñu espoir bu bëri yàq nañ ko mais nag ñu ngi sant yàlla di ñaan rek man moom sama wax mooy leen na yoon moom na def liggéeyam déjà nee nañu bi ñu defee seen communication nee nañu arme blanche moo ko rey te ñëpp xam nañ ne bal moo ko rey ba réel du sax bal blanc ba réel lañ ko doon kon donc loolu li ñuy wax rek mooy niñ ko dégg ni ngeen ko déggee niñ koy waxee ñun famille bi ñëpp noonu lañ ko dundee noonu la fi xewee ñuy ñaan rek yàlla yoon mu def liggéeyam bu fekkee ne nañ justice bi ñu am dafa tëddee njaaxanaay kon ñun ñi dañoo bokk ci dëkk bi ñu nekk ay citoyen sénégalais bokk ci Sénégal citoyen nag ay citoyen lam daa lañ moo tax yu bëree bëri day xaw a métti ci yoon la instant bi jot nañu gëstu citoyen li ñuy dund tey chaque chaque événement bu am manifestation bu amee nga gis ay meurtre déjà ñaari manifestation euh, mars de vingt 21 mars euh, ba ba mars bi aussi gis nga ba ci mois de mais bi da ko boo xoolee pile de vingt personnes ci loo xam ne ci zéro lañ dee amul kenn koo xam ne dégg nga kii def nañ ci moom lii wala dem nañ ñoom ñëpp a yam man li may wax mooy Sonko yoo état bi yow ñoom ñëpp benn lañ pare parce que ñun tey ñoom seen biir ëllëg li ñuy xëcc buñ ko amee ñoom ñoo koy wéetoo amul kenn koo xam ne si ñun tey ñoom dinañu dédommager wala wax ñu leen dédommager amul sens parce que li am sens mooy li nga ñàkk moo gën a for ay dédommagement mais nga def sa acte de présence en tant que état def seen acte de présence fii nga xam ne moom la mbir mi xëy ñun ñu xam ne kat ñii li ñu dal ñoom yëg nañ ko mais du kenn du kenn du kenn amul kenn koo xam ne ci commune Lambaw gis nga ko fi mu présenté wu comme moo présenté wu fi état bi xam nga loolu c'est pas sérieux mais nag yàlla baax na ñu ngi sant yàlla di bàyyi lépp ci loxo yàlla suñu borom di naan nag yàlla mi àtte dina àtte parce que yàlla gis na lépp gëmul ne lawul xëy na ñoom fi ñu nekk jàpp nañ ni mais àtte boobu boo koy dégg da nga koy ñàkkal fayda parce que da nga naan am naa doole am naa moyen li ñuy wax nii ay waxu nit ku jaaxle la rek fekk loolu un jour viendra day ñëw te di nga ko allah. noo yëgee xew-xew bi dal seen kaw. waaw ah, xanaa sant yàlla bu baax rek ndax mbir moom bu ñëwee sant yàlla rek wala li waaye mën a xew lu ne na sant yàlla bu pare li waaye mën a ñëw ak ni ma mën a ñëwee rek nga sant yàlla wala métti loolu noonu ko nag bu baax nag wala nag dara bu ñëwee da koy sant yàlla bu baax a baax a baax. noo ko yëgee. Ah, ni ma ko yégee xanaa tabaarakallahu maanaam ni ñu ko waxee noonu nag laa ko yëgee wala man li ma mën a xam ba xam ko daal damay wax ne chaque jour. yu mel nii bu xewee nit ñi nanu bàyyi nanu bàyyi xel nit ñi maanaam nguur gi lépp lu jëm ci wàllu nguur ak ku mu mën a doon na bàyyi xel yàlla na bàyyi yàlla xel ndax doom joo xam ni xamul dara di wëlle baayam takkoog baayam baayam baayam muy xaritu baayam di léppam ngeen xëy ci pamam falan-falangee ko nii rek mu xëy dee dafa dafa dafa ñaaw dafa salte ngeen xëy dem toog rek fàtte fàtte waxu leen ci lenn lenn lenn lenn ngeen mel ni ëllëg nii ngi nii ngeen leen audité mel ni yéen du leen audité loolu ñaaw na ñaawlu nañ ko lool lool lool lool waaw man moom ñaawlu naa ko lool lool lool yàgg naa wax nag nee naa ne nag ku yaakaar ne fu mu toll nii li ngay def sa bopp la ndax nga sa bopp ndax nit mënoo ñab de jam nit ki ba pare waat ñëw rek bëggatuñ la lim lim liggéey ndax alal alal da ko fi bàyyi bu dee taar da nga ko bàyyi loo fi bëgg da ko fi bàyyi wala loolu lu rafet rafet lu mu métti métti métti da nga jam nit ki bal la xale la boo xam ne ni yaakaar la woon boo xam ne ni ci ay waajuram ay maamam ay yëpp ñu palang-palangee ko loolu dafa ñaaw dafa salte boo ko déggee dafa ñaaw boo gisee ci WhatsApp bi dafa ñaaw boo gisee ni kobal bi dalee dafa ñaaw boo gisee affaire bi nu mu génne nga xam dafa ñaaw te xale boo xam ne xale bi la moom rek lañ amoon yaakaar goo xam ne tabaarakallahu nekkoon suñu xarit nekkoon suñu lépp ñun yàlla def na ni baayam kenn la ci ñun ay maamam euh, euh, euh, yàlla def na ci boppam suñu jigéen la maamam bu jigéen bu bu jur bu jur baayam suñu jigéen la ndax ay ay ay ay ay ay rakk ay rakk baayam ñoo bokk daayira sopp da baax bi nekk fii buun tabaarakallah ñu ci liggéey lu rëy rëy rëy tabaarakallah kon nag bu lii xewee ñun dañ fi ñëwal euh, euh, euh, dañ fi ñëwal daayira bi yëpp. mais yéen waa côté bi nan ngeen dundee manifestation yi amoon. waaw ñun nag yàlla dimbali na ba muy am buun la ñu fekk moom ñu fekkee buun ci bappam danoo def loo xam ne ci boppam bañ a génn nekk suñu kër jàpp suñu njaamur. ndax loo xam ne boo génnee man bal mën naa jug dal la euh, doo xam fu muy jóge man daal doo fot suñu njaboot foot lu nu am tëj suñu kër yi noonu lañ def. Euh, ñu ñëw tey fii ci Grand Mbao fekke fi xew-xew bi nga xam ne moo fi am nan ngeen ko yëgee. waaw ñu sant yàlla rek di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana bi jaay say wujur sallallahu alayhi wa sallam noo yëgee xew-xew bi. métti rek wax dëgg yàlla suñu doom la. ñun ak papam ñooy ànd dañ ko yegee moom dëgg-dëgg am nañu lu ñu metti loolu yàlla xam na ko waaye nag ñu sant yàlla comme yàlla mooy faalu li ma yurit lu ko soob rek lay def ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax daal macha allah waaw bisimilah. gis nga ko bi yëf yi amee wala. non man gisuma ko waaye ci vidéo yi rek laa ko gisee li ma ciy wax rek eh, damay dama dégg ci journal bi ñu ne dañ ko jëm paaka waaye yàlla dogal na loolu amul maanaam moom bal lañ ko dóor daal. ci li ñu jot a gis daal macha allah gis nañu bal bi nag macha allah. waaw bal lañ ko door macha allah. spectateurs yi ñu ngi nee nag yegsi nañu si kër gi nga xamante ne fii la xew-xew bi amee dal seen kaw Sénégal yëpp nag métti lu ko ànd koog ñoom naqar bi muy mbirum Amadou Keita moom nga xamante ne ni moom moo ñàkk bakkanam si manifestation yi fi amul ñu ngi toog nag ak yaayam yaay ba ñu ngi lay nuyu. fay naa leen. ñu li la Sénégal yëpp jooy la. laa jooy la nañ ma ko moom gis naa ñoo xam ne sax xamuñu ma xamuñu dugal nañ ko jooy nañ tamit. jooy nañ ko moom deewam mi daa metti dee bu metti la dee noo ko yegee yow mi nga xam ne yow yaay waajuram. parce que man dama tàgg woon ak papaam ne doonu fa gëj jour bi muy gaañu sax na ma woo na ma 13h woo na ma ba pare ma wax ak moom mu coupé mu woowaat ma ne ma dafa bugg a wax ak rakkam bi. léegi ma woo rakk ji xawoon na sore mooy nanguwul coupé dafa insister pour wax ak moom ma jox ko mu wax ak rakk ji mu coupé benn deux heures rek papaam ne ma paap de dañ kaa rey si manifestation yi gaw ma ko woon sax gaw ma ko woon ma dem mais anam yi ma ko fekkee sax moo njëkk a metti dañ koo tiire anam yi ma ko fekkee fekk ko poste de santé foofu amul woon médecin amul woon dara ñu tëddee ko noonu ci karo yi dee na dee bu metti wax dëgg yàlla dee bu metti la rek ndax suñu ne paaka rey ñu ko paaka de dañ koo tiire ko tiire rey ñu ko paaka mu nekk sa taaw ñu woo la ne la sa doom ñàkk na bakkanam donte déggante woon ngeen ci 13h euh, 22h papaam woo la ne la ñàkk na bakkanam nga ñëw tim ko ban yëg-yëg nga am en tant que waajur. yaay ak doom dafa jege yantoo téléphone bi sax dèjà bu mu sonné lu ma yëg moo njëkk a parce que maa ngi naan sama sœur papa ji dafa ma woo rek mën na sama sœur bu bëreet te noonu mosuma woo heure bi am na lu xew moom duma bàyyi ma fen wallaahi azim parce que yaay ak doom dañoo jege yantoo lu ma yëg metti na de na lool sax metti na. bi nga ñëwee nga tiim ko nga gis deret ji sang ko parce que ñi koy gis ci vidéo yëpp noonu lañ ko gisee aussi te dafa metti kay ak bal bi mu tëdd ñu sang ko dee na dee bu metti nag dee bu metti la dee. ñu ngi dégg ne dañ ko jam ci dënn bi mu génnee ci gannaaw mu nekk loo xamante ne lu metti loolu la moom mu ngi amoon 14 ans. waaw ah, ans la amoon parce que le 6 juin bi la waroon dugg ci 15 ans xale la du mat xale la. dafa ragal sama affaire manifestation kii bu même souvent day waxtaan ak sama yaay mais sama yaay danaan ko paap ba dem doo dem si am di mu naan maam déedéet man du ma def yooyu dafa ragal déjà doon nit ku am sax fit xale bu ragaloon la dafa ragaloon. yan activité moom la doon def. da doon jàng boole bëggoon football tamit football rek lay seetaan tele lu mu bëri programme soxlawu ci dara lu dul football football rek la doon seetaan lu mu bëggoon la tamit bëggoon na ko mënoon na ko tamit mënoon na ko lool sax. nga amoon yaakaar kon ci moom. moom naa yaakaar ci moom kay même xale yi war a dem final bi nii sax moyen de vingt ans yi bu mu kerew maa ngi seetaan TikTok bi gis leen maa ndeysaan xam sama doom ji fan kañ lay egg si fii moto sax trois jours ñu ànd gaañu na metti na comme ni ñu koy waxee xalam demoon bay neex buñ ko dog yaay ji amoon na lu mu yaakaar maam ñu ngi lay leen. noo yëgee xew ah, metti loolu. ñu ne ah du moo ko rey arme bu la moo ko rey ah, bàyyi nañ ko ci loxo yàlla lépp lu mu mënta doon rek muy loolu waaw ñun soxlawuñu dara suñu doom la soxla nañ ñu ko jox ci jekk ak teraanga ñu dem denc suñu doom moom rek la soxla dégg nga li xam ne moom la bàjjanu yaay ji wax mu nekk lu métti léegi lan ngay xaar ci yoon. ah mu def liggéeyam te ñoom dañoo génnoon pour affaire Sonko ak Macky Sall damaa bëggaat ñu génn def justice pour Pape Kayta ñoom ñoo génnoon de dañoo génnoon xam affaire Macky Sall taxul man affaire politique sax intéressé wu ma soxna si doxuma sax si yoon man sax dèjà duma sax voté ndax affaire yooyu intéressé wu ma ba plus forte xalaatu moom sax ndax sama doom si affaire politique yi lay des ñoom ñoo génnoon xaw ma affaire Macky Sall la ñu génnoon xaw ma affaire Sonko nañu génnaat def justice pour Pape Keita loolu rek laay ñaan ñu def seen liggéey. au moins comme jàpp ngeen ne bal moo ko rey ñu xam ban bal si bal la xaw ma ban bal la mais bal la soxna si bal la bal lañ ko rey kenn nettaliw ma man maa muri sama doom gis trou bu xóot bal la bal bi nii lañ ko jamee mu génnaat génnaat xale góor yi for ko waa. téléspectateur yi ñu ngi toog nag ak kenn koo xam ne maam la ci xale bi maam ñu ngi lay ngi lay fay. mu lay masawu li ñu bokk. waaw baax na ah, la de. noo yëgee xew-xew bi. daal dañoo toog suñu kër. cité gendarmerie vingtième promo foofu laa dëkk. parce que kii dafa tas ak papam ñaari doom la moom mu jël ko góor ki jox ñu ko jigéen ki mooy rakkam mu ngi ñëw na sax ci dëj bi. léegi yu nekkee si néeg bi toog toog toog muy altine lundi 22h moom yaay ji ak mag ji ñoo doon waxtaan man na tëdd naa man bu ma jullee damay tëdd léegi nag bu ma tëddee ma dégg nag ma tëdd ba yàgg rek dégg yaay ji di yuuxu ma ne ko yow lan la lii dafa guddi bul yuuxu mu ne ma pa tanoor moo ma woo nee na ma pap dem na ma ne ko pap dem mu ne ah léegi magam moo nangu téléphone bi daal di ne daal di ne daal di ne ko tanoor loo wax mu ne ko pap dafa dee ma ne ko ma ne ko yee ma ne ko pap munul dee mu ne ah ma ne ko non non munul dee damaa tiit daal si boobu nag laa jóg bi ma jógee ci saa si laa jël kalandoo ñun ñoo ànd ñun ñett ak ñoom seen benn rakku papa ñoom laa àndal ñoo dëkk moom dama ko woo rapidement rek kooku génn bi ñu daal di dem bi ñu ñëwee jël kalandoo policiers yi ci tali bi lañ leen fekk ñu sol ay gilet takk seeni masque yooyu ñu taxaw yor seen arme léegi bi ñëwee ñoom ñoo ñu may ñu jàll bi ñu jàllee ñu continuer dañoo dem a dem ba si case bi fu lañ fekk xale bi case de santé bi fu lañ tëral xale bi ma ñëw ma ne papam ana ana ana pap mu ne mu ngi ni tëdd foofu yëpp nekk deret dégg naa sax carton lañ ko defaroon mais am na ku jigéen koo xam ne kaalaam la ko muur après nag xam naa ne boo gisee sax film bi ñu ci kaw ñoo ko filmé daal di koy partagé noonu lañ ko reyee ndey te ñi ko rey li ma gën a yéem fa lañ taxaw lii ma lay wax nii ñi ko rey ñun fan lañ leen fekk ñoo ñi rey paap armée boobu ñu fa lañ leen fekk ñu taxaw ak seen oto bi xale yi góor yi reprier nag uti ut si leen ci lañ taal seen oto dem ñii ñoo ko rey ñii ñoo ko rey ñii ñoo ko rey ñoom ci lañ taal seen oto dem ñun fa lañ leen fekk ñu taxaw ak seen arme dafuñu dara ah boo reyee nit looy defati amoo looy def surtout xale li ma gën a yéem ci wax ji bal bi fii la jaar génnee fii ku doon daw la parce que xale bi sax nekkul xale yoo xam ne ay manifestants yi da koy topp parce que xale bi déjà dafa ragal Pape ku ko xam xamul ne ñemee na mukk foo introsé tey dañ laan Pape ragal la Pape mosul fanaan moom kese dama koy jox néeg mais danaa ma déedéet du ma fanaan man ñemew ma sama ginnaaw lay fanaan yaayam tukkikat la day dem Guinée di jënd bagage di ñëw bu yaayam bu fa nekkee day ñëw yaayam bu fa nekkul day ñëw dernier koor gi àjjuma dernier koor gi la ñibbisi fii papaam ma ne ko pap di nga julli si mu ne ma mu ne ma waaw bu ma entraînement yi bàyyee dinaa ñibbisi booba laa ko mujjee gis ndey mais bu ministre bi génnee mu ne arme blanche la ndey du arme blanche waa ji da koo rey ba pare tóllanti benn bal ci pooj bi ñaari bal la da koo dóor xarit bi mu àndaloon di ko jàpp bal ba fekkaat ko fa boo xoolee sa tëddul correct paap moo ca la tëddee pooj bal moo ne ci pooj bi ndey ay fee yoo xamante nii nit man dégguma de damaa teg sama bët waxuma nii nit ñi dañoo ne nii nii di damaa gis commandant bi mu ñëwee bi mu ko yëkkatee ñun ñëpp ngi taxaw sama rakk jëkkër ngi taxaw yaayam ngi taxaw mag yaayam ngi taxaw ay ay mbokki papaam a ngi taxaw dana carrément lii bal la mooy commandant bi ko enregistré waa bal la ñu déggaan ministre bi ne Alma Branche la noonu lan la deme am na sax ñu may dégg ñu naan déedéet xale da non non non xale bu amee activité da koy def xale bi day jàng day du dëgg quatrième la xale bi nekk nii déwén normalement bu ko fi yàlla bàyyi woon troisième lay def BFEM la waroon def déwén ku bëgg jàng la bëgg football seen kii bii nii passé nii deuxième la jël cinq premières yi mosu génn même seen bu ñu defee sax tournoi nii day da koy da koy vidéo ñëw di ma woon vidéo yi ndax tellement dafa xarañ yàq nañ ko nag rey nañ ko nii ñun espoir la woon bu ñu am ci moom yaakaar waxuma la yaayam kii de mais entourage yaayam ba ci man mii sax sama rêve yëpp paap la luñ ne nii mën a paap paap paap paap billaahi azim man luñ ne nii paap laa jël sama lépp teg ko si dama ne woon maamam bu góor dama koy damay gunge école jàmbaar ma inscrit ko fa parce que affaire yi fa la gën a gaawe daal ñu ñëw def ñu nii ba pare ministre bi taxaw ne bal blanche la bal blanche <laughs> loolu bal blanche la bal bi mu ngi fi bu papaam ñëwee di leen génne bal bi ko rey dina ko génne réellement dina la ko won yow bal bi moo jaar fii génn ci kii bi ku doon daw la ndey dañ lay yàqal ba pare ëpp la làmmiñ bala ma dee ñu ne justice ndey lan mooy justice lan mooy justice justice sa lay rey sa dossier justice nga koy jox ku lay àtte justice an kan mooy justice man xaw ma ba tey comprendre ma man ba léegi mënuma la wax lan mooy justice man. parce que yow ma tey boobu jëndee plainte sax dugal ko bu leen neexulee ci suuf trois lay des sans suivi lay doon moo tax lii jarul di dem fenn duñ ci jéem dara dañ leen ni bàyyi ak yàlla parce que coow li coow li nag yokk coow la yokku coow kese ngay def gën a siiwal sa bopp. xaj na ñu ko filmé ba partagé ko mooy ñi taxawoon ci terrasse yi ñoo ko filmé parce rey bi dafa ñaaw. waa ji dem delsiwaat dafa dem delsiwaat rey ko xale ba mu tëdd ngëlbati waa dóoraat ko ci pooj bal boobu génnul de bi mu dóor si génn bal boobu moo génn mais commandant bi lii ma lay wax xam na si dara commandant bi enregistré fee bi xam na si dara te xaj na dina génn wax ah ku moom dafa yore kayam di bind. commandant bi fan ban gendarmerie je veux dire. man xaw ma man xaw ma sol na tëni rek taxaw na yor na ay kayam moom la doon xaar ba mu ñëw ñu ne commandant bi ñëw na ak ñeneen ñaari gendarme. ñoom ñoo ko yëkkati ñun ñëpp a ngi taxaw sama rakk jëkkër a ngi taxaw yaayam a ngi taxaw magu yaayam a ngi taxaw ak yeneen ñu fa nekk biñ ko yëkkatee dañ ne non lii bal la ñu ngi taxaw desaat na parce que xale bi moo ca tëdde tëddee ki mu àndaloon ba kooku di jàpp ci loxo bi bal moo ko fa fekkaat xale bi daw yaay ji fii la toogoon démb ndey ñun xamuñu justice ñàkk nañ ñàkk nañ loo xam ne duñ ko mësatee am ci àdduna bi du amati sunu yaakaar yëpp lañ tegoon ci xale bi ñun bariwuñu ay jigéen kese lañ moom nijaayam ak moom man doomu jigéen rek laa am luñ ne mii paab laa mës a jël sama yaakaar teg ko si moom am na am na tantam boo xam ne ni tiktok la def da koo tiktok boo waxee mu ne bint boo waxee bint soo waxee mu ne paap paap paap paap parce que yaru na demul dikkul fii lay toog bu jegee fii bu demee entraînement weekend moom day ñëw sama kër bu fa yaayam nekkee day ñëw bu fa yaayam nekkul day ñëw kenn musoo ko dégg ci benn bruit 31 decembre lu coow lii bari bari génnul fi mu toog la toog seet jàpp te leen di seetaan match yàqal nañu nag man nag ndey boo xamee justice wax ma ko man xaw ma justice ki ki la war a fajal bu la fajalulee foo jëm parce que ki ki la rey réellement taxaw la xool nga koy xool. mu bàyyi doomam tëdd bàyyi jarbaatam tëdd rey doomu jàmm ñun xamuñu justice nday justice yàlla xam nga xam ñun ne duñ ci jéem dara bàyyi ak yàlla parce que loo ci mujj loo ci def tamit du feeñ du am si la mujj yow journaliste allo allo Maria Maria mujjul fenn lu mujjul ci jéem lenn bàyyi lépp ak yàlla ñun politique ñu xamuñu sonk xamuñu Macky la xamuñu Adji Sarr xale bii ma lay wax xamul sax kii kii mooy kii xamu ko moom boo koy laaj laaj ko ci jour yi boo koy laaj waxal ak paap wax ko ci kii la kii kan la ci jour yi moom xamul sax lii daw ci àdduna bi xamu ko man nag dama naan waxtaan ak moom lu baree baree bari parce que bu ñëwee man maag moom ñooy fanaan réewu nekk jour bës bu ma ne ko bi bu ma ko paap mu ne naam ma ne ko yow dinaa wax maam bu góor ñu ànd bés boobu laa la wax billaahi azim woo na ma ñaari yoon ama ah, yow jàppagoo pour ñu dem école jàmbaar ma ne ko non maam bu góor ñëwagul bu ñëwee dañuy dem ñu inscrit ñu xool ñu ñu xool foofu ah, lan mooy formalité pour ñu inscrit man sama reew lépp loolu la woon. sët ak maam dañoo jege yow rawatina koo xamante ne amoon ngeen si moom yaakaar ñun daal wax dëgg yàlla dañoo sonn mu toll nii ndege ni daaw jéeg. def naa 14 émissions yoo xam ne bu si nekk fouraas daal di xëddéem ñuy ñaan yàlla peut-être xëy na bii am changement ndax xale bi ni mu demee vidéo yi ñëpp gis nañ ko ci Facebook bi ñoo ko filmé parce que ñun ñun fee bi dafa ñëw rek ñu ñëw direct ñi ci étage yi ñoo ko filmé ñoo ko partagé dégg ngeen ni ko maam ji waxee ni si kaw ñoo ko filmé ñoo ko partagé mu nekk loo xamante perte bu métti métti la ndax xale boo xam ne am nga ci moom yaakaar le 6 bi la woon am 15 ans ngeen ñu ñëw mu ñàkkee nii bakkanam mu loo xamante ne lu métti lool lu si am rek dinañ ko topp incha allah ndax xam ngeen émission xew-xew lépp loo xam ne xew na dañuy dem ba si source yi dem ba nga fa la xew-xew bi amee ñu xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dund ñu expliqué ñu ni mu demee ndax ñun duñu ne dégg naa wala téléspectateur u 7TV yi mu nekk loo xamante ne lu fiable lay doon ñu ngi massawu nag waajur yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ndax métit bi métti na te Sénégal yëpp leen ko jooyloo ndax ni mu demee la ndax nee naa ñàkk li muy métti métti ñàkkin moo ko gën a métti te ñoom ni ñu ñàkkee dafa métti kon ñu ngi leen di massawu baax a baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne yaa doon seetaan émission xew-xew di jaajëfal Cheikh mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi ak Mouhamed waaye Paalo mi nekkoon ci oto bi di dawal di jaajëfal ñëpp rek waaye di massawu li nga xamante ne moo mi nga xamante ne le 6 bi la woon am 14 15 ans mu ñàkke noonu bakkanam ci manifestation bi nga xam ne moom moo amoon bërki démb mu nekkaat beneen perte humaine boo xamante ne ni nit la ak ay noppam ñu ñàkkati ko ci lan coow loo xamante ne ni ba léegi njaw mu nga say desaliw xambin lu ci mënti am rek dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla leeral lépp ba nga xamante ne ni lépp dina leer si bopp sénégalais yi ndax métti na torop torop torop ku la waxul métti na rek dafa fekk na booba yow gaañuloo te nee nañ bu ñu la nee massa fan ngay muñee ci xol bu ñu la gaañee fan ngay muñee ci xol kon xol bi dafay fees ba dafay mujj tuuru kon ñu ngi massaw ay mbokkam bu baax a baax a baax di leen ñaanal rek yàlla na fi lii gëj Sénégal yàlla na sama dernière émission bu may def si meurtre boo xamante dafa am si ay manifestation parce que ñun wax dëgg yàlla sonn nañ si manifestation yi sonn nañu si ñu nga xam ne ñoo si ñàkk seen ay bakken sonn nañ si ñi nga xamante ne lépp dafay doxe tàbbi géej du mujj fenn jaajëfal naa leen rendez-vous incha allah maa di lay doonaat si biir 7TV télé bi ñu nuru ba noppi ñu jërë ngeen jëf